mbokk téléspectateurs yi mu xam ne rek ñu ngi ci njeexantal jotaay bi nag euh, niñ ko waxee rek imam euh, Moustapha Niang imam fi may daanale rek mooy euh, daaw gis nañu que ni yaa ngi yoon jiite benn agence de voyage bu mag macha allah muy pèlerin yu takkoo takku toppoon sa ginnaaw muy Sirmang voyage ba nga xamante ni at gu jot da doon dem ba daaw am jafe-jafe yoo tax demu leen ren tam ñu amoon yéene yaakaar waaye tam gis nga ren ni mu demee muy mbas mi nga xam ni moo gàllankoor mboolem aj bi imam bu waxtu fii jamono jii ba ñu ne suba la taxawaay Arafat bu la fa daawoon fekk la ban yëg-yëg nga doon am. Euh, d'abord damay tiit damay rus damay tiit damay rus lu tax may tiit mooy dafa am daaw ci waxtu bi lu xewoon ba tax ba mbooloo yi àndoon ak Sirmang voyage demuñu woon loolu lépp nekkoon ci diggante euh, Sirmang voyage agence bi. ak ñi nga xam ne mooy délégation pèlerinage ak ñi nga xam ne ñooy naar yi wax yu bari la ca amoon ci ñaawteef lépp ñu teg ko ci daru serment voyage lépp amut dara mu ci ay fen la woon mën naa ko wax baatu fen dama ne du ma ko rus di wax du ma ko ragal di wax ndax fen mooy lu amul fen nga wax ne lii mu ngi fi ñu ñëw fekk ñu ko fa ñu ne lii amul fen loolu la ñu jàngal ne fen la kon nit dana fen mag dana fen gone dana fen Euh, buur sax dana fen kilifa dana fen kilifa yi nga xam ne ñoo yoroon aj bi ci waxtu boobu am lu ñu teg ci deru Sirmang voyage wax ci loo xamante loolu amut kon loola dana tiital nit ki diggante jullit ak jullit ñu dénk leen ni yëfu màkka te mënu leen yóbbu ñëpp ngeen am ñu ngeen jël favoriser leen am ñu ngeen jël wàcce leen ne ñii duñu dem parce que te parce que boobu nga wax ne moo tax ñooñu demuñu parce que boobu bu dee benn parce que la am na parce que téeméeri yoon yu ne ci ñeneen ña nga jël yóbbu leen kon loolu jar na tit jar na ruus li gën tax ruus bi moo ren demuñu màkk du duñu yàlla waaye daaw bi lii amee ñun amoon nañ yaqin ne déwén kenn du dem màkk Sénégal. imaam loo bëgg a wax foofu loolu foo ko foo leen ko tegoon. jërëjëf. gis nga àdduna bi li muy rëy yëpp benn benn yàlla moo ko moom asamaan si li muy rëy yëpp benn yàlla moo ko moom gis nga place bi li muy rëy rëy yëpp yàllaa ko moom mais benn nit lañ ci tudd bu bi nga toogee fii ne jumaa ji ko kon nga tudd maam Ansu na nga tudd mais lan ma tudd Cheikh Abdoul Aziz Dabakh lu tax tuddloo Cheikh Cheikh Cheikh Mouhamadou Fadel Mbacké lu tax tuddloo Cheikh Mouhamadou Moustapha Mbacké lu tuddloo Cheikh Abdoul Khadir Mbacke lu tuddloo Cheikh Salih Mbacke lu tuddloo Sëñ Babacar Si lu tuddloo maam Mbuuk Mbuuk dañ Jaasan mais lu tax tuddloo maam Cheikh Ibrahima Niass lu tuddloo Cheikh Ahmad Tidiane bi nga xamante ne bu yàggul la ko yàlla tuta ala jël bu yàggul rek cryptèque eh, boobu kenn ku ak li ko yàlla dénk bi mbir mi amee daaw suñu wóojur maam Ansa dafa am lu mu waxoon ba ñu ñëwee toog ci kanamam carrément la laaj da nga tooñ wala dañ la tooñ ma ne ko dañu maa tooñ tooñu loo ma ne ma yàqu ma lekku ma jàmbur lu ma jërëjëf mu ne bul boo ko defoon nit la may metti mais pour nit def la ko nag mun na nekk waaye pour nga def ko nag la ma doon metti nag nga tooñ nga yàq nga jël alalu jàmbur nga tooñ tooñ loo ma ne ko déedéet mu wax ko lépp ni mu demee ma ne kon ndaxam nag pour ma wax la ne liñ ma teg ba wax ne loolu moo tax du ma dem Makka ak sama groupe Sirmang voyage ne ñooñu ñoonu am na ñeneen ñu def lu ëpp loolu fuuf junnee yoon te dem nañu kon tooñ la ñare ba la ñuy wax ne maa ko yoreel Arabie Saoudite ci alal ju bari amut ay fen la ay fen la amut foo ko mën a wax ci kaw suuf fen la moo xam ci nguur ba nguur jeex moo xam ci imaam bi imaam yi jeex sëriñ bi sëriñ bi jeex ko wax da fen bi ci des mooy su fekkee ñun ñaa ngi dem màkk ñu ne man awma manuma aj moo tax <laughs> pendant vingt et un ans ñi di dem màkk di ñoom jàppal datu mille neuf cent quatre-vingt-quinze quatre-vingt-seize ba deux mille dix-neuf maa ngi dem màkk di ñëw benn yoon laa demul màkk kon xanaa su ma demuloon màkk su ma mënuloon màkk su ma mënuloon aj xanaa kon du ma yóbbu ay nit lu tolloog juróom ba juróom-ñaar yoo xamante ne at bu nekk nga yóbbu lu ëpp téeméeri nit màkk ci jamono rawaan mbay muy jiite ba ci jamono général Cheikh Ahmad Tidiane eh, Dia nga xam ne mu mujjee ñëw ñu tëj commissariat pèlerinage indi délégation pèlerinage jox ko Amadou kebe Amadou kebe jóge fa ñu jox ko Abdoul Aziz kebe ba jamono boobu yëpp amu ci benn yoon boo xam ne def nañu yàqal nañu yàqal nañu benn ujaaj wala ñu def fa loo xamante ne njombe la ñu teg ñu ko ne loolu la def ñu pare cheikh bi ci boobu ci set ci meram man xam naa ko bu baax moo ma jur maam Ansu moo ma jur xam naa ko bu baax ni da ngay xam sa waajur mu ne su fekkee ne dañ laa tooñ su fekkee dañ laa tooñ xanaa xamuñu ne ci kattanu yàlla am na loo xamante ne mën na tax ba bu déwee ne kenn du dem Sénégal màkk. kon kon loolu. Euh, maam maam Ansu. maam Ansu moo ko wax. dafa yëkkati woon déclaration bu wax ko. wax ko. xanaa xamuñu ne tooñ bii mën na tax ci kattanu yàlla loolu wax de ci kattanu yàlla tooñ bi mun na tax bu déwee ne kenn du jóge Sénégal dem màkk ngir ni la xajee màkk man bind naa ay lettre yónnee ko ci gouvernement bi wut na ay nit ñu xam gouvernement bi wut na ay nit ñu xam jéem naa pour première dame yëg ko jéem naa pour président de la république dégg ko dem naa pour ministre bi fi nekkoon booba amado Ba ñëwagul ñi fi nekkoon pour won leen ne délégation pèlerinage bi ak ministère affaire étrangères bi seq ujaaj yi ci biir Sénégal nañu jéem a ànd ak président de la république ñu jéem def délégation ñu dem ci Serigne Mame Ansou ñu jéglu ko ci tooñ bi ñu tooñ doomam tooñ njabootam tooñ turam tooñ l'islam tooñ diine ndax Mame Ansou am lu mu wax xanaa xamuñu ne ne xanaa xamuñu ne tooñ bi ñu la tooñ mun na tax bu ci kattanu yàlla déwén kenn du jóge Sénégal dem mais mais mais mais mais euh, Imaam euh, euh, lan moo waraloon mbir moomu en fait wax nga ne dañ la tooñ te en plus ñan ñoo kale carrément dem bi tamit il faut ñu xam ko. dem boobu ñëpp xamoon nañ ne su fekkee ne ñoo ngi war a dem wara liggéey war julli si jumaa ji ñu dem ba liqaam ba taxawal buñ julliwul kan moo tax Imaam kon kay su fekkee ne dem nañ war a dem Màkka taxa war dem Màkka te demuñu kon am na ku tax ñu mooy délégué pèlerinage délégué général de pèlerinage Abdou Aziz kon Abdou Aziz Kébé lépp ci boppam lay lay teer ak ñi nga xam ne ñoo ko jàppale ñoo ko dimbale soit ñu xam tey def soit ñu ton soit ñu juum waaye ala kulli xaal li am yëpp amu ci lenn loo xamante ne jaroon na ñu téye fi ay nit ba ñu de du ñu dem màkk jël ko nag teg ko ci benn den doomi aadama teg ci ay der ne kii dafa escroquer de l'argent cent quarante wala cent quarante quatre millions lañ ma teg ne loolu laa jël xaalis mais mais à son retour euh, fi may daanale mooy ginnaaw si aj bi noonu ba mu ñëwee est-ce que euh, seq jotaay amoon na toog waxtaan est-ce que loolu am na ndax xam nañ ni euh, agence bu mag la boo xamante ni waroon a dem te demul. loolu naari ñoo njëkk a kaas loolu man toog naa benn naari ne ma yow bu la neexee tey ji génnal Sénégal nga dem beneen réew ñu fekk la fa nga dem màkk bi ñuy arrêté loola na man mënoon naa dem màkk man pour dem màkk kooku jaaxaluma déedéet ba tey jii yow suba la arafa suba la arafa suba la arafa. arafat rek bisu arafa rek laa mënut dugg Arabie Saoudite bu arafa jeexoon suba suba gannaaw suba mën naa dem màkk ci pelu màkk mun naa ko kooku jaaxaluma mais nag naka la waroon a mën a demee ay nit ay doomi aadama yaakaar ñu ñëw ne dañu dem màkk joxe seen alal plus de trois trois millions trois cent ay nit joxe ko ba pare mënuñoo dem màkk la tax mënuñu dem màkk ñu ne diwa diwa diwa diw la ñooñu war a dem ba pare man mënuñoo dem man ma jog dem kon ñu ne ko def ñoo jaay. ma ne kon damay toog def ni ñuy def dund lu ñuy dund ñàkk a dem bi toog ak ñoom ba pare nag wax ak ñoom dëgg won leen dëgg bi ñu xam ne seen xaalis lekkuma ko jëluma ko naanuma ko xaalis mu ngi fu mu ne mu ngi ci ay naar yi nga xam ne moom lañ joxe woon waaye kanta lu ñuy wax ne moom lañ amel naar yi bor bu tax man mënuma dem loolu amut imaam fi may daanale diggante boobu ba mu ñëwee yéen ak pèlerin yi naka ngeen mujjee ginnaaw si loolu comme ni nga ko waxee seen seen xaalis mu nekk loo xam ne lu lu xaw a compliqué la. waxtaan waxtaan ak wax dëgg fii ci jumaa ji laan daan woo ci kaw wala ci suuf ñu waxtaan ñu won leen lan la wax leen dëgg ñu xam ndax nit ki itam am na loo xam ne boo ci tolloo doo ko nëbb nit ki ñun amuñu lu ñu doon nëbb amul groupe whatsapp lan defoon amul lu ciy làqu ku ci nekk ñu won la wax la sa xaalis fan la nekk sa xaalis danga ko jot. ñu def ndànk ndax xaalis bi nekkul ne da ngay ñëw rek nga joxe ko ñu la ko dugg ci valise wala dugg ci compte tëj déedéet dañ koo jël yóbbu ko pour toppatoo la li war a tax nga mën a dem màkk ñooñu ñoo yar xaalis ba xaalis bi kon aj bi euh, kii na yàqu na kon mënatu mënatuñoo jël xaalis bi delloo siwaat ko noonu ñu commencé nag li ñu am ak li ñu amut ñu dajale kenn ku ci nekk ma ne leen du ma xool mukk ne yow da nga joxe junne ma fin ma ma fere fere fere fere fere ba mu des téeméer man la léegi téeméer laa la yoreel déedéet dama la ne sa junne yëpp dinaa la ko delloo man loolu laa jël engagement commencé am nañu jot keroog ci bis ba am na ko xam ne 3 mille 300 dañu delloo ci saase fi la jël jóge jàllu keroog dafa joge fi woo jabaram ñu tase aéroport mu dem da delluwaat France ndax France la jóge woon li ci nag mooy li nga xam ne moo fi nekk ci euh, ci pèlerin yi ñu wax ak ñoom dëgg ñu yenn saa ñu wax yenn saa nit ki itam alalam xaalisam boo ko gisul xamu ko te mu gis ci réew mi ne loolu mu ngi am li ñuy lekk seen xaalis ñu foog ne loolu la mais bu ñëwee ba ci fii xam nañ ne kii du lekkatu xaalis am na ko xam ne carrément dañuy waxtaan pare mu ne waxtaan wax dëgg ci la bi ñu gisee ngay wax ak ni ngay waxee xam nañ ne wóolu nañ ne alal ji nekkul alal jo lekk mais ci biir na comme noonu la ñun comme suñu suñu alal la ñu soxla suñu alal la bëgg yow fexe na suñu alal ak nu mu mënti toll ñu ngi jéem ci lañ nekk nag di jéem di jéem ak ñoom di jéem ak ñoom ñii ne déedéet dañuy xaar ba déwén ñii ne dañuy xaar déwén boobu nag moo ñëwaat te kenn demul màkk kon ba léegi am na ñoo xam ne jotaguñu seen xaalis am na ñoo xam seen xaalis am ñoo xam ne démb démb démb a jot am na ñoo xam ne dañoo wax ne ñun soxla wuñu teel xaalis ba màkka moo taxoon ñu jox la xaalis bi kon teel ñu ko bu màkka mënul am ñu dem màkk su ma mën a am na nga yóbbu ñu màkk ci lañ telu ak ñoom imaam ñoo ngi daaneel kaddu gi rek yaakaar naa di la santaat sa disponibilité mu mel ne rek yaa ngi daan loon ci kaddu gu am solo bu euh, ki nga xam ne mooy euh, euh, maam Ansou Niang kilifa gi tam yëkkati woon ay kaddu la mu li nga waxoon tamit jëmale ko tamit ci autorité yi tam ndax loolu tam egg na fa mu war a egg. foog naa yeggul président de la République Macky Sall moo yor Sénégal foog ma mukk xam na maam Ansou bu baax moom nekkul buur bu baax bu baax a baax a baax ba bu nekkoon ba muy màgg xam na ko soxnaam xam na maam Ansou bu baax. bu baax a baax a baax a baax a baax a baax ndax am na fu ñu bokkee wala ci am solo mooy ñoom bu ñu yëgoon wax jooju am na ci ni ñu taxawee ak ni ñu bëggee ba ñëw taxaw ne damaa bëgg réew ba Macky Sall ñu votal ko jox ko Sénégal mu yoral ñu ko su fekkoon ne xamoon na ne maam Ansou wax na lii doon na moom ak tànkam jaral na ko mu dox fii ba Sirma ne papa lan nga wax ci aj bi lan mooy xew ci aj bi mais boobu ba léegi du délégué bu ñu changé ministre bi moom daal dafa mel ni sax dara xewut te pourtant diggante bi wax nañ fi ay alal yu ñu fi jël ay milliards ñu fi lekk ay nangam lu mais diggante boobu su fekkoon ne xamu nañ loolu maam Ansou carrément la wax xanaa xamuñu tooñ bi ñu la tooñ ba xañ la màkk loola war na mën a tax bu déwénee kenn du dem ci Sénégal muy baat bu rëy fexe woon naa ba ñu bëri jot ko waaye nit ñi moom Sénégal a rek gis nga at bi nga xamante ne eh, eh, mun na amoon na scandale bu fa ñu bëri deewoon mun na at boobu maam Ansou woon na ma dem naa boora dem maam Ansou woolu ma dem mu ne ma at bi dana taq suuf lool deret bari na lool ndax mën nga gis président ma ne ko mënuma ko mën nga gis jabaram ma ne ko mënuma ko waaye mën naa jëm mën demal nga jéem nga fexe nga wax leen lii ak lii lañ war a def te pourtant loolu sarax li la woon te deretu nit du tuuru deretu ma la moo doon tuuru kese nit ñi dem ñëwaat ma leen gis mënuma wax ak ket fu ne jaar naa fa bi bis bi nga dem bi may dem màkka mënu nekk mënuma lépp lépp deret la munu ma ñii dem màkka ren ñu bëri du ñu delluwaat seen dëkk màkka la ñuy dee dee bu bari dee bu ñaaw dana am mag dem naa ko wax ki nga xam ne moo nekkoon commissaire direct commissaire pèlerinage muy euh, euh, général euh, Cheikh Ahmad Tidiane Dia jëm naa ko ko wax dégluwuma wax dëgg yàlla dégluwuma ngir ne jamono bi may wax ak moom wax jamono mu ngi mu ngi ci leneen. nga nag war a taxaw di wax pour nit ñi mën a dem junne junne ñi taxaw benn taxaw ne la dama la bëgg a gis dama la bëgg a wax lii dama la bëgg a wax laa te mu nekk baay nekk ci man dafa jàpp ne ne eh, li mu doon gis mooy man yor naa ay pèlerin laa leen a yóbbu kon waruma fi nekk di waxal leneen comme am naa samay ma ko doon wax mooy nit ñi dem Màkka ñëpp duñu dellu feneen fu mu a jóge duñ dellu si waat nit ñi dañuy dee kon nag buñu defee nii duñu dee maam Ansu wax na ma ne lii ak lii ak lii ak lii la waaye loolu amutoon moo tax bi ñu bi ñu demee métti woon na lool. diggante bi nag loolu am fii tam diggante bi lii am na donc dañuy dellu mu ñu toog àlallaa fa waxas bu ñun ragaluñu kenn déedéet <laughs> déedéet du ñu dellu ginnaaw du ñu daw dañuy avancer bu miir nekkoon suñu diggante ñu ne yàllaa ngi ci ginnaaw miir bi yàlla woote dañuy mbëkk miir bi xar ko xotti ko dem suñu yoon ba nga xam ne loolu am na itam xaaluñu kenn la ñu war a wax wax nañ ko la ñu war a def nañ ko pare nag ne yàlla yaa ñu wax ne isa azamta fa tawakkal boo dogoo ci mbir wakkilu ci yàlla def nañ ko wakkilu ci yàlla ba ñu wakkiloo ci yàlla nag toog nañ ba ci biir délégué général pèlerinage itam déggoo am suñu diggante mais nii may wax ak yow Sénégal amul benn agence des voyages nii gouvernement boo xamante ne amul kayit bu wane ne waroon nga mën a dem Makka 2020 lu dul Sirmang voyage képp te moom délégué Abdou Aziz Kébé moom moo ko signé amul benn agence fan yële passé dégg naa ko dégg nañ ko ñuy di ko ñu di ko introsé ci rajo Sud FM mu di ko wax mu ne amul woon benn agence boo xam ne jox nañ ko jox nañ ko euh, euh, kii autorisation euh, bu 2020 waaw noonu la mën waxe waxee noonu la mais seen mag moom am na te moo moom moo ko joxoon. mais yéen mooy fu may daan imam imam li seen problème est-ce que bu leen toogoon waxtaan est-ce que mbiri yi du réglé très rapidement. amoon na waaye dégluwante moo amul woon. d'accord waaw waxtaan amoon na dégluwante moo amul man mii dem naa ci ci bureau délégué Abdou Aziz Kébé pour wax ak moom Abdou Aziz c'est mon frère ba euh, pare bu dul dara nit la <laughs> bu dul dara itam wax dëgg yàlla euh, war nañoo mën a déggante fekke ne njullit bu ñuy woote ci ñun ñaar dafa am wala si diggante ñaari kër yu mag yooyu kon Abdou Aziz Kébé xam na xam na moom bu baax waa xam na sama capacité man xam naa ko xam naa capacité du tey mais dem naa ba ci bureau toog nañu waxtaan waaye déggoo mënul am ndax la ma doon wax gisu ko mu delloo ma demal dem naa Arabie ay yoon. nga xamante ne sama xaalis laa passé donc bu perte amee man maa perte mais pèlerin yi perte ñu yàlla du taala defar na diggante bi mu wàcc si ma wàcc si ñu tase ku ci nekk wax li nga xam ne mooy sa naqar ak li mooy sa métti ñu toog di xaar boobu ba léegi nag wax dëgg la fi ñu ko doon xaar nag am na lu ci des waa ndax joxe na agré quota bi agrément bi waaye am na lu des mooy li taxoon mënuñu woon dem ba plaidé war a mën a taxaw ne kaay ma yóbbu la ci kaso ba ndax di maa yoreel xaalis wala ka xaaral ma dem porter plainte kaay ma kooku waroon na ma ci jàppale te jàppaleegu ma ci xanaa di ñaan yàlla rek yàlla mi nga xam ne mu mën a jàppale ñëpp mu jàppale ma te jàppale ko te jàppale ñëpp incha allah imaam jërëjëf ñu ngi lay euh, santaat bu baax a baax si sa disponibilité imaam euh, euh, Moustapha lan ngay tàggatoo ak waa jàmm ji info xanaa di ñaan yàlla a a yàpp rek yàlla na leen yàlla lu xuma wala dimaawaa soxlawu ma yàpp soxlawu ma dara soxlawu ma deret bi yàlla du naan dara yàlla du lekk yàpp nit ñi nit ñi la ko jox kon nit ñi ñoo war a góorgóorlu ba li leen yàlla taala jox ci ne dem leen ngeen jëli ay xar ñu fexe ba jaamu ci yàlla ak taqwa bi ni ko la wax ne ragal yàlla bi laa ci soxla kon nañu ragal yàlla nañu bëgg yàlla ñu yaakaar ko kenn ku ci nekk taxaw sa bopp xam ne li yàlla taala tax mu joxe tabaski jaamu yàlla du caaxaan jërë nga jërëjëf mbokk téléspectateur bu jàmm ji info jotaay boobu jotaay bu yaatu yaatu ak imam euh, Moustapha Niang waaye mbokk ñu fekk fii ci juma sunnatul muhammadiya di juma asu Niang tabarkala ñu di ko santaat ci disponibilité di ñaan allahu bur subhanahu wa doole guddal fanam doole ko defal tawféex ak tay na jaaxa defal ko saxat daare ni ki barke yonent bi mu yàgg fi ñu di ko santaat bu baax di nuyu mboolem a baax Seydina Omar réalisation bi commando fen Diouf rédacteur en